Euh, euh, plan d'ajustement structurel le le tombel il n'avait pas les moyens il euh, la marge de manœuvre donc moom li mu def yëpp li ñu koy mooy fexe na ba gaal gi suuxul waaw yàlla xam na ni vague yi doyoon na waar ak yëpp bu doon keneen gaal gi mën na suux mais moom méritam rek mooy téye na malgré les tempêtes les difficultés téye na gaal gi ba gaal gi suuxul ba ni mu ko joxee Wade nag mooy guerrier bi. moom daal ñëw rek lancer ce qu'on appelle les grands travaux. c'est-à-dire que euh, à la différence de Macky Sall. wadd mooy c'est l'homme des grands travaux. moom dafa ñëw rek ne gars yi acca leen ñu démarrer mooy yu Macky. mais euh, le plus et le mieux de Macky sur wadd c'est que Macky a maintenu la logique des grands travaux. mais il en a rajouté ce que je pourrais appeler les petits travaux. Ça dire quoi yi bu mu ñëwee il a maintenu la la dynamique mhm. des grands travaux ci ngay dégg BRT ci ngay dégg TER ci ngay dégg infrastructure yi mag yi ngay dégg mhm. mais ce qu'il a fait et que Wade n'a pas encore fait fu Ablaye Wade jaaroon tracé ko mhm. Macky tabax na ko ma jox la affaire affaire école yi euh, les abris euh, provisoires fu Wade ñëwoon euh, je me rappelle à l'époque am lycée ñu créé ay sàkket ay hutte mhm. Macky bi mu ñëwee tabax na ko mais il a fait mieux désenclavement li mu ci def mhm. kenn du koy def l'accès euh, à l'eau et à l'électricité xam nga quand on parle des infrastructures dafa vaste avec mhm. I majuscule infrastructure routière mi ngi ci euh, aéroportuaire mi ngi ci maritime mi ngi ci mais eau électricité mi ngi ci ce que le régime le président Macky Sall a fait en termes d'accès aux services sociaux de base benn président mosu ko def même boo cumuler ñoom li ñu fi jaar sax kenn mënu ko def kon donc kii jàmbaar la Euh, euh, irréprochable. Mm-hmm. L'empreinte de Macky va dépasser l'usure du temps dans ce pays-là. Mm-hmm. Il aura, euh, sur ce plan-là, je dis, mm-hmm. des infrastructures, des infrastructures, des réalisations physiques. C'est lui qui a mis le Sénégal sur les rails nouveaux. Là, c'est indéniable. Chapeau à lui. Maintenant, dañu nekk ci sunu marge de progression. Ça veut dire que le retard en termes de mise à niveau du point de vue infrastructurel, c'est lui qui l'a réglé définitivement. Tant du point de vue du centre que par rapport aux périphéries, mmh. et par rapport au centre à la périphérie, et par rapport même à, au Sénégal, par rapport à la sous-région sur l'international. Je vais vous donner un La question du transport, prenons l'exemple. Mmh. Casse-tête le on fait. bu BRT bi pare TER bi pare presque c'est résolu à 70 pour cent 80 pour cent problème pour relier le centre et les périphéries. Mhm. tey jii man bu njëkk boobu bu ma naan dem Fouta 12 heures de temps laay def ci yoon bi. Mhm. mooy dem Tabaski ak Korité en 4 heures de temps nga dem Fouta. et c' valable pour zone yëpp Casamance. Mhm. boo ko boo ko daan dem Casamance da nga daan fanaan Gambie boo may maytuul. taf taf nga dem. donc est ouest nord sud da ngay jógee fii dem fii rapidement jib du coow ba Touba. da daan yàgg da ngay ñëw dem. mais même à l' intérieur des zones. pour nga mën a accéder par exemple nga ñëw Casamance pour nga mën a accéder d'une zone à problématique la. def na ci liggéey bu am solo. ndox man dama koy wax fële ci Fuuta am na ay zone yoo xam ne. ku yeewoon seen maam wala ko sanc dëkk bi ne ko courant ngi fi ndox boobu fa événement la. am na ay zones yoo xam ne mosuñu woon yaakaar ne ndox dana fa àgg. donc euh, la réalisation la plus emblématique. reste le ranch de Dolly. pour qui connaît Pël. ak nu mu mel ci élevage man pël laa comprendre ranch de Dolly bi ay tey une révolution il a eu de très bonnes idées loolu moom c'est indéniable mais nag li muy bon bon li muy idées yi li muy baax baax baax yëpp pour ñun jàpp nañ ni dañu war dem ci next step te next step du moom moo ñu fay yóbbu c'est-à-dire moom def na la mu waroon def ba pare man jeex na defal na ñaari mandat bi na jox góorgóorlu ñu ñu ñu ñun tàmbale pour pour pour pour pour ñu li des mooy Euh, am nañu chance. Mhm. pendant vingt deux ans. depuis Abdoulaye Wade di ñëw le Sénégal euh, s'est inscrit dans pour ce qu'on pourrait appeler la politique des grands travaux. Mhm. en vingt ans on a résorbé notre gap de vingt ans de retard. Mhm. de quatre vingt à deux mille. de quatre vingt à deux mille sous l'effet des euh, politiques de programme d'ajustement structurel. on n'a même pas construit une école encore moins un dispensaire. vingt ans yooyu ñu tardé woon. Macky ak Abdoulaye Wade bi ñu ñëwee rattrapé nañu vingt ans léegi il faut aller à next supérieur pour ñun next kii bi ce n'est pas faire de la redistribution non non non mm -hmm. c'est faire euh, les activités les structures économiques mm -hmm. maintenant on a réglé la question de mise à niveau infrastructurel mm -hmm. maintenant il faut s'attaquer mm-hmm. directement aux structures économiques mm-hmm. en s'attaquant aux structures économiques on pourra peut-être parler prochainement euh, su ma dawalee sama ñaari mandat à partir de 2024 mm-hmm. je m'attaque aux structures économiques keneen kii ñëw nag ñëw nekk dans la redistribution mel ni comme Qatar fekk pétrole bi dugg euh, pétrole gaz bi dugg ñu nekk dans l'économie de la redistribution mais pour le moment le gouvernement à mon avis a fait une erreur stratégique dans l'approche stratégique en sautant une étape qui est l'étape de la structuration euh, de nos secteurs d'activité en mettant en priorité ou en priorisation absolue euh, l'agriculture l'élevage la pêche et l'artisanat voilà nos secteurs yoo xam ni mais vraiment dañ ci war a góorgóorlu trop quoi bu ñu ko defee rek euh, d'ici dix ans vingt ans euh, Sénégal mooy dàq Qatar euh, euh Macky président Macky Sall def na ay jéego yu am solo ci wàllum infrastructure luñ koy faral di gis mais luñ koy faral di joxoñ baaraamu tuuma mooy doxalinam yenn saay wax nga ko wàllu gouvernance mais aussi nee nañu surtout ay wujjam nee nañ day lalal ndëgg sërëx ñi nga xam ne nii daal ay wujjam lañu ci wàllu politique am ñu njott ne foofu la bëgg a jëmale Ousmane Sonko. Mhm. dañuy ñëw ci confrontation bi nga xam ne nii amoon na ci biir semaine bi entre Ousmane Sonko ak ki ko porté plainte ndaw si di ajisaar ci mbirum viol et tout. Mhm. confrontation boobu ak lu fa tukkee nan nga ko jàngatee. waaw euh, bu dee confrontation bi. Mhm. Euh, mën nañu wax ni man de mën naa jàpp ni. c'est une euh, c'est une montagne qui est accouchée d'une souris du noonu lañ koy waxee. ah une montagne qui est ah. accouchée d'une souris du noonu lañ koy waxee. Uh-huh. ça dire que euh, sénégalais yi depuis deux ans. Uh-huh. dañ leen a gaawee woon ay parole kii naan maa def lii kii nii deful lii ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy jiiñante. ak di weddi. sénégalais yi nag beneen sens. Euh, dañuy faral di wolof day war a wax ni werantee xuuxaat moom. Mhm. tekki tubay tekki tubay. Mhm. kon donc tey fi ñu jotoon mooy ñu indil ñu ay preuve de euh, parti bi comme parti bi ñu indi teg dara ci taabal yi parce que sénégalais yi demoon nañ ba nga xam ni suuroon nañ kël di woon nañ ci wax léegi nag ay acte ay preuve bu fekkee kiy jiiñe moo indi preuve yi opinion bi mën a xam apprécier mhm. malheureusement boo koy jàngat premier niveau jàngat da ngay gis ni. qui accusé woon était dans l'incapacité au sens juridique du terme de teg ci table bi ay preuves ou du moins jusqu'à présent man yaakaaroon naa ne bu ñu nee confrontation vidéo yi day génn photo yi day génn su fekkee am nañ ko man loolu laa jàppoon pour man euh, ay wax nii nii rek romboon nañ foofu dañuy teg dara ci table yi parce que yow da ngaa jiiñ nit donc boo jiiñee nit ba ñu ñaari ñuy wax rek ba ngeen am confrontation d'autant plus que ñoom camp bi ñoo daan faral di wax ni am na ay éléments de preuve bis bu confrontation amee ngeen di xam lépp dëgg la. ñu jox la possibilité confrontation on est resté encore dans le discours euh, dans le verbiage disons-le comme ça donc man personnellement euh, je, suis dans le doute. Mm-hmm. est-ce que euh, la accusatrice am na ay preuves parce que Sénégal fi mu toll nii moom sonn nañ ci wax. Mm-hmm. tegal leen preuve rek quoi bu ñu leen tegee preuve ñu xam maintenant beneen jàngat bi bu defaat mooy par contre euh, la preuve ne lui est incompa xam nga yow dama laa sosal. waaw kon normalement man maa war a indi preuve yi pour wan li ma lay sosal. mais ñu gis ni kañ doon sosal ci boppam moom mooy ñëw wëlbatiku di indi ay preuve pour wane ni kii daf maa bëgg a complot. Mm-hmm. est-ce que c'est ah. assez inédit. moo tax ma ni la parce que euh, pour man jàpp naa ni euh, le camp euh, d'en face mooy camp Ousmane sonk mm-hmm. li ñu def yi yëpp sax dañoo bëgg a seen bopp wala dañoo.